rahmatullah wa barakatuh waaw les gens ont peur hein les gens ont peur et ça se comprend euh, bu ñu xoolee situation bi nga xam ne tey moo dal sunu réew et vidéo yi ngeen di gis ñuy circuler un peu partout on comprend pourquoi les gens ont peur et ils ont raison d'avoir peur mais euh, dama bëggoon rek tamit ñu dellu siwaat tuuti euh, sunu xel am espoir et l'espoir nag c'est à nous euh, de le construire euh, nan lañ koy construire mooy l'action et bu ñu gisee CSD par exemple nii mu taxawee euh, jóg ñoom ñëpp ne maintenant il faut agir il faut agir et dans cette action je pense que nii loolu dafay nourir euh, de l'espoir que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons avoir un impact euh, sur le Covid. Et cela ne peut se faire que par l'action. Et je pense que ni, euh, nous le tenons par le bon bout. Maintenant, il faut accélérer la cadence. Il faut l'accélérer. Je pense que ni, axe euh, euh social bi ak euh, pôle scientifique donc El Hadj Alioune Badara Diouf euh, euh, Pape Diop bu Genève je crois que fi ñu ko jëlee noonu la noonu la et puis on a fait des partenariats euh, lu mel ni Secours sans frontières bu Mamadou Faye rejoindre nañu et donc man j'ai espoir j'ai espoir maintenant cela dépend de la réaction de Sénégalais waaw bu ñu bu ñëpp taxawee rek ñu jóg ni Covid bi dañ ko fii dindi. ou dañ koy freiner je pense très sincèrement que ni war na nu mën a am impact ah, pour changer ko et àdduna noonu lu mës a doxee euh, bi ñuy ñëw fii ci àdduna euh, je pense que nii bu dee doole animaux yi ñu ñu ko ëpp bu dee gaaw ñoo ñu ko ëpp mais l'homme a réussi à être au top de la chaine alimentaire parce que euh, loolu moo doon suñu destinée et des épreuves on en a connu et on les a surmontés et je pense que ni bii tamit épreuve la bi nga xam ne danoo dajeek moom mais suñu continuer di réagir ni ñu war a réagir man je sais que ni àla kullia li on va gagner on va gagner cette guerre mais euh, dafay dépendre au départ de la résistance de certaines personnes mais au fur et à mesure danger bi di gën a yokk ñëpp dañuy dem ba à un moment nous n'aurons pas le choix et nous allons être ensemble pour combattre et en ce moment là et donc lii laay ressentir tey jii ci fi ñu toll et je pense que ni on va gagner on va gagner euh, euh, contre cette maladie euh, parce que ñun ñëpp dinañ ànd cette solidarité dina am et l'action va continuer donc di remercier bu baax a baax aussi le pôle euh, communication avec Ablaye Pythagore et di remercier ñëpp ñi nga xam ni ci CSD encore une fois gars yi foofu ngeen ko jàpp foofu la il faut que tous ensemble comme ni ñu xeexee woon ci CRC Euh, pour mën a rapatrier sunu corps yi noonu la ñuy xeexee ci Covid pour mën ko fa dindi incha allahu rabbi merci beaucoup encore salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.